ñaali mi jooy ñaa ngi jaw xalin ñaali mi jooy oh oh ñaa ngi jooy xalin oh maji maji ko jooyloo dafa bëgg ñaa ngi jooy moo ngi xool maji maji baaloo ko day dem baaloo ko day dem baaloo ko mu dem xool leen ñaag mbaaj mbaaj ndeysaan oh dafa kontaan waaye dem na si nijaay ya nijaay nijaay mooy yaay xale yi respecté ma mooy yaay <laughs> xale yi respecté ma maa sa nijaay gis nga nijaay du ma solo oh xot na yére ba nijaay ji am na ndam déggal ma lool dégal kii yàlla moo ko fay xolam kii dafa baax ki xol bi dara nekku ci booy omb booy yëpp woo booy bi dina encadré di leen jàppale di leen taxaw tey lii yàlla war a fay borom tey booy bi dafa bëri wax lan moo tax combat bi yeex mais ñu ñoo ko ñoo ko gaay ñoo ko digal loolu gis ñaamu daw muy jooy waaw euh, Madji yàlla na ko ndam li jëkk yàlla na ko ndam ndax vraiment euh, da laa Madji dafa gëj a bëre moo dafa gëj moo tax làmb sax demee nii waaye wax dëgg yàlla Madji tàkkusaan bu ne def na ko fi làmb nag moo tëradi daneen xale yi dañoo màgg baax na wax waaw expérience face à la jeunesse du ma mooy xale ah li muy wax fekkoon dëgg la ci moom da ko a ñëw wane ko waaye tey nag maa ji yàlla suturaal na ko yàlla may na ko ndam yàlla na ko ndam la jëkk mu des dugaar mu des dugaar yàlla ko yàlla may may ndam saa waalo daan na dugaar daal moo ci des yàlla ko yàlla may ndam jërëjëf waaw waaw non non xam nga xale yi dama am ñeewantal déggoo lu ma wax damaa sonn sànq bi may jël wax naa damaa sonn ndax daa am fu ma jóge billaahi wallaahi taalaahi waaye mënu ma bàyyi xale yi il faut ma ñëw taxaw leen magal leen yal na leen yàlla suturaal yal na leen yàlla suturaal